olof ba naan làmb ak neexaayam soose ba naan làmboo naa la ti yàlla hey ne ko réel arbitre kay laaj ay siisam ndax pare ngeen Aboubacary Dramé moo koy arbitré ndeysaan ma ne ko Dramé koy arbitré ndeysaan Aboubacary Dramé ne ko réel la ak sikoori ma ne ko ne ko réel la ak sikoori ndeysaan ne ko reelu bi mooy premier combat am ay waay ne ko reelu moo leen won ginnaaw si ko ree leen won kanam arbitre nee na leen bëre leen ne ko reel ne ko reelaan si góor mu àndal ne ko reel la ak sikóor yi ari ñoo ngay lewtoo xale yaa ngay lewtoo ku nekk tàllal na sa loxo ndeysaan ne ko reel ne ko reel wàcc yi ne ko ne ko rel la ak sikoori waaw waaw yàgg na am ay door ay door tamit yàgg na fa am ay door ndeysaan ñoom ñaar ñoom ñaar ñu ngi leewaat ne ko rel la ak sikoori sikoori moo féete sikoori kale kolobaan mbooloo démb damaa dem Colobane. yow ma dajeeg ay dóorkat ñu dóor ma xaalis bu bari. ndeysaan ñoo ànd ne ko réel ak sikoori ñu ngay lewtoo. Sikori na ko réel eh la ilaha illallah ne ko réel eh jël na ko mboot demul Sikori ne ko réel Sikori na ko réel takk na ko dangay dem dangay dem wañ eh jolal eh, eh! oh! eh, nañ dem nañ dem la ilaha illallah

Koreël sant yàlla rek alhamdulilahi rabil alamin jërëjëf yàlla suñu borom jërëjëf yàlla suñu borom waaw li ma bëre moom gis ngeen billahi wallahi taala dala bu doole parce que moom laajte maas nga daw mu jox tànk nga bàyyi ko bopp mu songo na nga bàyyi ko ci kawam mu dégg mu teg nga dégg sa bopp. nit yi dëgg xam naa ko maa xam naa ne maa ko ëpp doole fuuf bilaay walaay xamoon naa bu ñu mu jeex. ne ko réel. bu Cambérène xale xale pouvoir baa ngi nii. xale yi dara li nga yelloo dama la koy jox ku li nga moom rek dama la koy jox quoi. bii mooy sa première combat. bii mooy première combat. nga mobilisé lu toll nii. waaw sant yàlla rek xam nga ak Parcelles surtout Mbor maa leen sant bu baax a baax a baax waa Cambérène amoo seen fay waa Mbor. ñi ma jàppale ñëpp maa leen sant bu baax di leen gërëm ah. monsieur le maire d'une part. man man maa fi rek kuy ma làmb boole rek damay bëre monsieur suñu monsieur le maire d'une part maa ngi koy sant bu baax a baax a baax maire Ami Gueye ñu koy sant bu baax a baax waa Cambérène Mbaye Dame maa ngi koy sant bu baax a baax sama grand frère yi maam Cheikh Yaali Diop Baye Fall maa leen bu baax di leen gërëm baay kontaan naa baay.